مصطفى إذ جاء يمطار من jëmmi yonent bi la du waxu nit waxu yàlla la waaw waxu yàlla la ku dégg salaatul faatiha ni nga ko tëggee nga xam ne lii waxu yàlla la allahumma salli ala sayyidina muhammadin al faatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaqa lu tax naasiril xaqi bil xaqi nga jublu ca lan ut ko ca wal haadi ila siraatikal mustaqim ci kaw lan nga ko bëggee wa ala alihi xaqa qadrihi ñu ne ko ban nattuwaay mu ne wa miqdaarihi al adim xam nga ne lii du waxi yeneen salaatu yépp baax nañ waaye boo déggee salaatu yooyu dégg salaatu faatiha di nga xam lan mooy différence bi waaw yaay allahumma salli ala sayyidina muhammad salaatu naari alladi tunxalu bi qil xuqaru wa tunaaru bi xawaay wa tu baax na de baax na de salaatu naari ya baax na de salaatu lummi yi baax na salaatu ibrahim baax na waaye seen sang nag mooy salaatul faatihi li maa uxliq waaw seen sang mooy salaatul faatihi li maa uxliq waaw waaw. am na mhm. ñu nag bu baax bu daaneelee kàddoom rek waaw kañ waaw kañ. Chérif Atahiya moo ñu dal. Abul Atahiya dafa daje ku ñu wax Moussa Hadi mu soxla ko du koy seet yebal ci moom ku ñu wax Hamda Weyhi Hamda Weyhi di seet. abul ataaxiya ndax Moussa yi moo ne ko foo ma ko mën a gisalee rek andil ma ko li may waxee ci jamonoy Haaruna Rachid la mu du koy seet ba fekk ko ca jumaa ja Daaru Salaam abul ataaxiya seen Hamda Wahi rek jëg du julli jullilu waaye Hamda Wahi am jot lool toqaar ko ba mu julli ba pare mu ne ko ah maada naqulu la aan léegi lan ngay wax mu tontu ko na ko kada qadallahu kayfa asnaaw ida daqal kalaamu fa sukkuutu aw saxu mu ne ko lii la yàlla dogal naka lay def waaye bu wax bu wax xatee noppi dafa war a gën a yaatu ñun nag lii tey la yàlla dogal waaye sa jëmm ndax mag nga sëriñ nga lépp la te dinaa ko leeral ci biir wax ji mu mel ni wax naa barki démb sa saalum ne ñett dañoo nuroo te duñu benn mi salaam silaam ak sulaam ma ne Sénégal nag dañuy tudd baati salaam waaye baati silaam ak sulaam lañuy jëfandikoo asalaam muy firi nuyoo ak jàmm bu dee silaam la nga maas ko maas ma kasra muy firi wax ju ñaaw ju jëw sa noon ñëw si yow wala iñaan goo xamante bii sa noon moo la ko ëmbal walla xeer bu la sa noon jam bu dee sulaam na nag muy firi sidd yi nekk si baaraam yi ci ci loxo moom la woykat ba woy na badaa waxayaa bi salaam rama azuli bi silaam aashara nahwi sulaam bi kafihi lmugaddabi bilfatxi lafdun mubtadi walkasri sahrun jalmadi wa dammi irqun fi yadi xajaa fi xawli nabi baat boobu lañ lay wax mooy salaamaaleykum shérif Zuhayr ibn Abi Sulma la ko daloon rek ca antara moo ñu dal ci yow Zuhayr dañ ko jox bi nga fooy maalaqaatal asri toog mu jël xalimaam ne amin umu awfa dimnata lam takallumi xaw ma nata daraaji fu mutsalimi wa daaru laha bi rahmataanika annaha marajiwul wasmi fi nawasir mexsaam dem ba ci biir na diggante ba ma déparé xa soppe ma ma doon seeti def naa ñaar fukki fan ci yoon ba ñaar fukki at ci yoon ba kon yàgg na waqiftu biha min baadi isrina xijjatan fa laayan arafta daara baada tawahumi waaye ba ñuy joxante micro ba yegg ca antara ibnu sadaat dafa jël micro rek jaar fa zuxeeri jaaroon na na xalxaadaratu amala arafta daara baada tawahumi maanaam xattara ko soara un shay'un qabli ndax ñu fi jaar des nañ fi dara waaye ku déglu lu shérif wax xam ne dara desatut fi ay dara ñu ngi lay nii di lay ziyaara wax nga ko sax mu waajur ku xam sa papa la eh, toog naa mu nettali na ma na ma moom lu sant kuntaak ay dara namuwut waaye amu ci kenn koo xamante bi ñeen ko ci lasraar suma waajur mu ne ma waaye lu sant kuntaak ay dara nag am na koo xamante bii nii mu ne ku ma wekk la ci lasaraam yi muy sa papa ba ca garab ga ñu toogoon ca Sokone di waxtaanee turi yàlla ba wan na ma ko te lu yéeme xam nga boo jàngee Souleymane Mouhamadou Jazuli mu def dalaa ilul xayraat yi dafa jox doon def siyaaxa tourisme bés mi dox ba ndoxam jeex waxtu julli jot mu gis teen te amul baag falam yejit maa yaxruju bihi ma amul baag bu mun a rootee ca teen ba muy wër rek mu toog rek dégg benn xale bu jigéen buy yuuxu mu gestu xool ko mu ne ko yaaykat mu ne ko man may Suleymaan Mahamadu Jazuli mu ne ko lii sa problème mu ne ko xanaa bëgg a root di seen ndox mi mais ooma baag te damaa bëgg a jàpp mu ne ko antale di yusnika bil xayri yow la ñuy tagg naan yaay sëriñ diw ci wilaaya yaay sëriñ diw ci nàngama nàngam mu ne mu ne ko ngay xool ndox mi ndox mu mënul lay fekk si mu ne am ko kon dese ngay am cër ci yeneen bi ñëw ci pindi teen bi julli ci yenant bi yuuxu ndox mi di tëb di tëb ba tolloo pindi teen bi ba ndox bi di tuuru ñu jàpp ci ñoom ñaar mu gesu xool xale bu jigéen bi ne ko bi maa nit a xaadil martaba fan nga jëlee cër bii mu ne ko bi kasrati salaati ala bi bëri lu may julli ci yenant bi alayhi salaatu wasalaam Suleymaan Muhammad Jazuli ne kon du ma taalif du ma julli ci yenant bi waaye damay taalif téere jox ko yenant bi ci la taalifee dalaa'ilul xayraati sama papa nee na mu toog ak sa papa mm-hmm. nee na ñuy waxtaan ci sirru ummu Muusa nee na korog la ko sa baay gën a ñulu mu dal di sóobu ci lasraar nee na ma ba muy jàngale yenn téere yi ci lasraar du mu ko tudd nee na boobu mu ngi jàngale laxdari baayam ñëw am benn mu bambara bu ñëw di jàng si benn téere ci téere yi nga xamante bi dinaa ci ñëw léegi ci fin bi bu muy tëj ca téere lasraar yi ci la bokk mun ne ko bàyyi laxdari nga dem jàng ko mu ne ma waaye sa baay mos sa gis si surafa yu ku mel ni moom ci lasraar ci turu yàlla nu mu ko xamee woon li nettali na ko ñaareel bi ci desit man suma waajur ko ko xam filmé leen ko bu Chérif Bounama Aidara la tudd amul koo xamante bi ragal na ko ci dëkk waaw ànd naa man ak moom ñuy dem kër ma jëbal ak doomam Chérif Mouhamed mhm. kilifa yu bëri di fay daje nettali naa la ko ay kilifa mhm. yi nekk fii ci senegal mhm. mu ne ma de am na loo xamante bi dinaa leen ko ca oto bu ñu demee ca mbooloo ma dinaa ko wax mu ne bàyyi Chérif Ibrahima Aidara xaw ma ku ko gën a doon shérif fii ci Sénégal ñu demaat ca jotaay ba mu waxaat ko kon bu seddee loolu sa waajur te ñun amul lu dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga doon mag ci ñun kon sëriñ nga ci ñun lépp nga ci ñun ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax gis nga deret ci yonent bi dara du moom Sénégal nag dangay ngay toog ñu naan xaddimu xuraysan wala tax dimu waaye wax la waaye jëfee wuñ ko eh, Abdul Karim al Makhili dafa ànd ak cheikh Sido Omar Cheikh mooy maami kunte yi mm-hmm. ñi dem di ziyaara yonent bi alayhi salaatu wasalaam daje nañu ko Abdurahmaan Suyuti yi ci ginnaaw gi sax ci la bind Ihyaa'ul Mayyiti bi fadaa'ili ahli bayt rasul parce que boobu xamu doon deret ci yonent bi ni mu toll mm-hmm. ñu ñëw Abdul Karim al Maxili boo ko xamut nit yàlla bu mag la woon ba muy waxtaane Abdurahmaan Suyuti bii def junniy bayri yi nga xamante moo ko def ci fi ilmul ahadis def tafsir bu siiw boobu noonu ni ñuy waxtaan mu du koy laaj ay xaddis mu du koy tontu waaye heure bu ko laajee xaddis dafay dem ci raw du papaam mu ngi ko suul ca boori jumaa ja bu génnee daal du koy tontu. Cheikh Sidi Omar Cheikh ne Abdou Karim Makhili kii lan moo war la muy def lii mu ne ko boo ko laajee dafay dem laaj papaam boo ko laajee xaddis daf koy laaj papaam te papaam boobu mu ngi ci biir raw rawdu bi. papaam laaj ko yonent bi yonent bi wax ñëw tontu la. te loolu al anbiya wal awliya yusalluuna fi quburihim kama yusalluuna fi buyutihim yenent yi ak wëli yi dañuy julli seen biir bàmmeel di jaamu yàlla kon ba ñu nekkee seen biir ni nañ doon jaamu yàlla du kémtaan euh, pour continuer xiste bi pour àndi la ci loolu tegtal Cheikh si Mokhtar al Kunti yi doomam ba mu génnee àddina Cheikh Sidi Mouhamed al Khalifa moo def ak taraif wa taraidi fil karamati cheikhain yi def nañ ziyaara papaam moo ngoon mu dem ci raw du papaam nag daf koy rendre compte lan leen defoon ci bi ñëw toog ci raw de papam na ko kafa bil igraai man xulli mutalaha wa raha anha biha rijisu wa tadniisu ala diyaaratiha mawla xilaafatuhu ijaa yunsuduhu wa leelu malbuusu papa tontu ko ba taaliba yi mu àndaloo ñëpp dégg lu Cheikh Sidi Muxtaar tontu te boobu mu ngi ci na ko zurna wala tataqallaf an diyaaratina fa fi diyaaratina insun wa taxdiisu fiha burun fiha burun zi danatin wali sadaidi tafriji wa tanfiisu moo tax Abdul Karim walaa ji Abdurahmaan Suyuti xadis bu ko xam mu dafay dem ca de papaam laaj ko papaam papaam laaj ko yonent bi yeneen bi wax ko mu soog lay tontu Cheikh si dooma Cheikh na ko kon de dese naa am cër ci yonent bi comme day laaj papaam papaam laaj yonent bi mu soog a xam man bu ma toogoon benn soixante benn dix bu suma bët tegoo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam maadada nafsi bil muminin du ma ponte sama bopp ci ñu gëm yàlla ba demee ci kitaabu minute fi itixaadi ahlu sunna di nga ko fa fekke mhm. bañ fa jëw koo dem ci du yonent bi pour wala sutu yonent bi ni mu toll te abdul karim al maxili moo jàngal cheikh sidi omar cheikh te amul cër boobu ci yonent bi mhm. bañ demee ci rawdu yonent bi ñu bëgg a ziyaare nee na xam nga wukkallaa ubbi man ihi ku dan gaa da rawdu yonent bi nag ko ir er bi mënuñu tuddi mënu leen dugg ci biir mu def ba xasidaam nga busraaka yaa qalba xaada saydul umami fa xaadi xadratul muxtaari fi lxorami ba yegg ci yaa saydi yaa rasulallahi xus bi yëddi fal abdu dayfu wa dayfullahi lam yudami yonent bi génnee loxoom jox ko ko mu ziyaara ko mu ko bañ fa jëw ko ngir ziyaara ko ngir indi yóbbante sa waaju shérif gàmmam gi muy def le 21 mai bi war a ñëw lu yéema la dama nekk Maroc di jàng ñëw benn année ñëw Sokone Sokone dëkk bu yéema la dégg naa ci seen cheikh mun a bokk na ci dëkk yi nga xamante ni lu fa waay ñaan yàlla yàlla nam ko kii fa la dëkk mhm. yaa maskanal xayri yaa Sokone Sokone a xum naa ilayka istihaaban bi tiwaawoona daaw ba gàmm gi di waaj a si gàmmu shérif taalibe yi na ma def ci xas yi dama def ci benn baxru ci baxru taw yi tawilun lahu dunal buhuri fadailun fuulun mafail fuulun mafail fa salaamun ilal xawmi ajaban aleykum bi ajmali xayaata ala dawil iman ci biir wéy ba nee naa soo koon a xaadat kulla xayrin wa tarxibi liman tawajjaha ilayha bil aadabi mubin dëkk boobu la 21 nag mi sa gàmmu waajur di shérif ma xam nu la fonkee ñëw nga fa sa heure yoo xamante bii heure yooyu noonu shérif du ma gis mu recevoir kenn ku dul ku dul yow nga ñëw fa mu tëj lépp korog boo gisee toogaayam ak nu mu mel nga xam ne démb la xool ngi sa waajur billaahi wallaahi taala nee na ma ku naw la sa waajur moom shérif mu ne ma ci ragal yàlla ak turi yàlla mu ne bu ko xamoon sa waajur raw naw ko ci naw ko ci nga ngay doomam di lépp mun a ma semaine bii passé laa génn hôpital def naa hôpital euh, fan gii nii un mois mars bi passé laa génn mu ne ma waaye loo tawat tawat demal ba kër shérif nga xamal ko ne ko gàmmu gi may defal maam yeneen tiba alayhi salaatu wasalaam jub si na la 21 la bu ñëwut yit na ci def ñaan loolu la ñuy yónni moo tax woo so euh, oustaz Samb rek laa woo rek. calendrier bi laa doon waaw oustaz Samb laa woo rek. Mhm. mënuma yànk rek man a kon xaaral ma daw si ñëw. Mhm. jokkoo naa ma rek ñëw mënuma gàmm gi de xaw ma ban gàmm waaye gàmm yi yàlla nangu bii ci la bokk mën a ko lu tax mënuma sama am yeneen tibi alayhi salaatu wa salaam recevoir na ma démb si guddi. daf na ci xasidu bu guddi banaytu baynan bayaanan duunu wa xasanun wa tuubu mustarixi bi rakbi wal kasari nabastuhu inda tubdil xawaidi min jofi turaabi fala sabira bi muxtasiri ci biir woo bi nee na yeneen bi jox na ko numéro téléphone boo xamante bi ci waxin na ko heure boo ma soxlaa woo mu wuyu si la ci Sokone fii ramaytu ko yow ma xable lixtisaali ala ma qad jara baynana ya haadiyal mustaxiri ca la waxee fa nasalullah an yalu bina wa balal min alhuda wa wala wa raxsi fi lxadri sa papa sa góor gi nee na ma bés dañoo toog boo ñëwee Sokone boobu góor gi Ibou mboo fa la nekkoon ci kaw tali bi ci benn kaasiya mu am ñu ko fa fekk du koy ñaanloo mu ne leen yàlla boole woon na maa yéen démb su guddi waaye ki yer seen ñaan ko nangul xaar leen ko léegi tey mu si ndax buñ na dara réer na ci néeg bi ka fa mujj moom la tuuma topp <laughs> ida daa shay'un fi ghurfati fa tuhumata ala aaxiri man yaxruju minha ndax man damay dégg jël ay waxam di koy di koy tënk ci xalaat mm-hmm. mu ne ñu toog sa papa dal di yegsi wax leen kenn ku nekk lii sa aajo na leen dem leen diw di yow lii mooy sa ajo demal aajo na faju demal diw lii mooy sa ajo mu ngi faje dëkk sàngam mu ngi faje dëkk sàngam góor gi nee na ma korog la ñu waxtaanee tur boo xamante bi tur bu matul téeméeri per toog naa Maroc dëkk bu ñu wax euh, Agadir di ci waxtaan ak góor gi Malang Sarr mm-hmm. ma ne ko dégg naa sama papa mu ne ma toog naa papa Chérif ay Aïdara mun a tur bu bëri na ñu koy wër waaye képp koo dem mu jox la ci téeméeri per xamul tur bi li may wax ay sa leen ko bàyyi bu kunta bu nekkoon xalifa Ndiassane ñëw na saa maam Chérif mu laaj ci tur boobu ñu waxtaan mu ne ko ñaan na ma balaa may dee ma doon xilaafa ma toog xilaafa mu ne ko naa la jox tur boo xamante bii nii matul téeméeri per boo ko liggéey doo dee mukk lu du nga toog xilaafa famille bi nga bokk kenn du la gën a gudd fan kenn du la ci ëpp wërsëg moo tax Baye bu dund na 92 ans mhm. moo tax nga dégg ñoom Cheikh bu Jóoba wéykati xaadir nga ñu naan Baye bu Sërif mu laay moo joxoon Baye boobu secret waskuris antum xalilun mhm. nee ma korog ma ma sa papa secret boobu lañ doon waxtaanee mhm. ma korog foofu la njëkk a toog liggéey tur ba mu ne ma ba léegi heure bu fa toogee balay jóg nit fekk ko fa jox ko dara jox ko dara pour wax leen ki leen yàlla booleel waaye wallahi billahi wallahi taala waxuma ko ko ngir lenn lenn yàllay neen moo tax ndax ñun ay taalibe lañ kon Chérif kontaan nañu gis nga wallaay la ma doon xalaat ba ma ñëwee loolu laa fekk ngay wax wax nga ko léegi gis nga alxuraan dafa yéeme dañuy daane wax nga ko léegi ci Faatiha na mag ñi ku ñu naw dëgg duñ la ñaanal Faatiha bu jeex Cheikh Sidi Ahmad El Bekkaay dafa ñëw walaata mag ñi jàmbar ko ne ko heure bu ñu xëyee gaynde lekk fi kenn mu ne loolu lu mun a nekke bu dëkk bi gudd jotee ñu tëj dëkk bi moom gudd jot moo fanaan ci gannaaw dëkk ba ñu xëyee fekk gaynde yi wër ko ñu jaaxle laaj ko lu waral lii mu ne xanaa moo ko leen fatiha ñu ne ko ah kay mu ne leen am na juróom-ñaari ci xuruf ijaay yi am na juróom-ñaari xuruf yi amu ci bismillahi rahmaani rahim may fajasa sasa xasin moom la tënk wax ak gaynde ne leen yaamante nadaxa bil kamali an waladin wa walidal xusha bil baqaai wal xidami bi shay ako kin qadimin ibni li fajasin bi tam-tama dam-daman yaa sa yahimi fa la tëgg tal samba بتمتم دمدما يا أخشى يهمي بارك لنا عضنا بباين عجل وحب لنا نعمة طول من النعم واترك لساكنها من الشباء ومن كل أقالب وحياة وسقم يا ربي واغفر الذنوب ودم الماء نضلا ودي صلاة على المختار في خدمي نجاين دي بغتuma leen fi gis xuumu ilal xaanata jóg leen dem ba xaanata nee na gaynde di dem na ko ñu ngi dem waaye buñ ñu fàtt si ñaan te juróom-ñaari xorof yooyu amu ci basmala moom la tënk moom moom moom moom la dàqee gaynde yi mooy fajjasa sa xasi benn alim toog na di waxtaan di fii fatiha benn xale bu ndaw romb ko na ko nag ñu ngi laa woowee borom xam-xam waa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mënoo koy firi ñu bëgg a jóg daal ci ko xale bi xale bi dem këram papaam ak yaayam dañoo génn àdduna waaye wëcce ko benn jaam mu jël juróom-ñaari joore wurus jël bik ak fooy bind ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jox ko jaam bi na ko demal nga jox ko kooku ñuy woowee boroom xam-xam mu ñëw waa ji lii ko lii da ba ma koy xam bu bàyyam sax juddoogul maas ko tomb ko ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin ñu jox ko xale bi mun a déggul iyaaka di iyaaka ataaka la na'budu mooy bi abdin wa iyaaka wa ataaka nasta'iin bi sab'iina maanaam ataaka bi abdin wa ataaka bi sab'iina iyaaka mooy ataaka may naa la na'budu mu ne jaam bi ma yónni ci yow may naa la ko wa iyaaka wa ataaka mu ne ko ma mayaa la nasta'iin mu ne ko bi ñaar fukki góore wurus ku ko juróom-ñaar fukki góore ko tomb mu ne ko déggoo ko Seydina Omar benn xale romb na ko mu yàgg nga aw yàqusim àla taqufin mu ne ko uhu mu ne ko lan mu ne ko tanaxusin Seydina Omar xool ko mu ne ko taqawa fa raxlu min ha taamikan xaridan kama taqawa fa aw lu nib ati safani boo yore paaka di dagg mango di lekk paaka dëgg gi mu lay daggal mango ngay lekk yaa ngi ci gis sa bopp kontaan ci waaye paaka bi moom kontaan na ci lu muy dagg ndax lu muy dagg moo koy lekk moo koy lekk moo tax dara du alxuraan maa ngi te tafsir ayaatu tis a tey léegi mu ne am na benn tubaab dafay jàng inna lazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihum naara kullama nujjat juluduhum badal naa juludan xayraha li yaduqul azab aaya boobu moo ko tuubloo ah parce que yàlla def na ñi nga xamante bi dañoo yàlla wéddi alxuraan karim bés ñëw dina leen dugal safar waaye bu seen jër yi xëmee kullama nujjat juluduhum badal naa julu dan xay daxa masaade la yeneen der mu ne bañ demee xool gis nañ ne doomi aadama yàppam boo ko jëloon teg ko ci safara du ko yëg waaye deram boo ko jëloon teg ko ci safara mu yëg ko parce que doomi aadama bokk biy lakk lu koy métti ci der bi ci la ko yàlla def moo tax yàlla waxul kullama nujadluhumuhum badal naa luhuman xay daxa waaye kullama nujad juluduhum badal naa julu dan xay daxa euh, ci secret bu ma doon wax léegi shérif ci alquran te sa baay ak sama baay du ci doon waxtaane ci secret was ko sa antum xalilun ba dugg ci wala xad waxee naa ilaa ummi Moussa asma ku mënoon a wëy la ngeen baal ma rek. waaw yaa ko ku mënoon wëy la benn xale bu jigéen daf ko fekk na ko ku bugg a wëy nga mu ne ko mais wëy lu ci gën a jafe mënoo ko mu ne ko lu gën a jafe ci wëy mu ko xaafiya bu daanoo waaw. alxaafiyatu asabu min waawu saakinati maftuhun ma qablaha misla law mu ne ko wéyal mu ne ko xawmun bi najdi ahdaanahum saqaahum allahu min an naw xaala naw maada nawtu lu'lu'u fi duja laylatin halkatin muslimatin law ala law maada law saara fiha farisul athna alal bihil ardi man taw qaala man taw man maada man taw kasihil hadimil hasaka baadi yanqudu min aljaw qaala jaw maada jawu sama wa riixu taalu bihi fa sama riixul ard faalaw qaala faalaw maada in kunta laa tafhamu ma qultuhu fa anta indi rajulun baw xale bu jigéen bi na ko dëgg la mais aaya alquran bii ma fekk nga tiim wala xad awxaynaa ilaa ummi Musa mu ne ko aaya bi dàq na ñeent yoo xamante bi benn aaya melut ni moom ndax am rey nii nax yee ni xabar yi ni bisarate ni ñaari ñaari ñaari dëg digle muñ ci aaya bi ñaari mbëgte ñaari tere ak ñaari xibaar ird ihi nampal ko lan la du ndigle alqihi fi yam mi sànni ko ci dex gi nag laa taqaaf yi wala taxdan bul jàq bul tiit du ñaari tere mm-hmm. inaa radduhu ilayki dinaa la ko delloo si lan la du mbégte mm-hmm. wa jaa'iluhu mina muslimina du duma ci yem ëllëg naa ko boole ci yeneen yi du leen du mbégte mm-hmm. aw xëy na ak xifti mu ne ko ñaari ñaari ñaari ñaari dee dee yaa ngoog moo tax dara du alxuraanul karim ci loolu nga wax salaatu salatu fatiha duñ ci dugg suñ ci sëri xutbul bikri yi def na ñaar fukki at ci kaaba gi du koy liggéey ba bés waraqatu nadara min sama waaye dafa wax ne man qara hadi chiga marra waxida walam yadxulu janna fali qabidani bayna yadayhi la azza wa jalla ku ci jàng benn per la wax bu yàlla nangu yomal xiyaam duggoo ci àjjana moom si salaatul fatiha nag ma pañe si kanam suñu borom subhanahu wa taala loolu bu ma sañoon du ngeen ko jël ci jamono jooju noonu ñu tënkoon ko ci juróom mi rabbun mayhun alxanamun alwaqami altasamun laaxut xaaxut xalakut malakut jabut ñu tënk ko ci bin bin naqasa naqaqa debida salaatul fatiha moo tax tabaarikàlla yal na yàlla def barke eh, eh, eh, sérif kontaan nañu wallaay man bokk na ci ñu may tiitaroo ci yow yow ci nga bokk man dama bugg ko bokk ci deret yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam nga du koy doxee ci wax du koy doxee ci jikko wallahi te képp koo xamante bi ni bokk na ci deret yeneen bi bu la xoolee rek dina la nawloo wallahi lazim loolu rek laa la fonkee bokk ci sama maam Sëriñ mu lay nee na bokk ci deret yenent bi ci deret baax na waaye li ci ëpp solo mooy bokk yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci jukko wax nga ko léegi yenent yàlla Suleymaana ci lay tëjee boo demee ci Midinatu Talasim mu ngi koy nettali doomam dafa feebar lu ne mu jéem ko ci mu laajte jinn yi benn jinn bu ñu Asafa ibnu Barqiya mu ne ko benn jinn laa xam ne bu ci xamul dara xaw ma ko ci xam dara mu ne ko nu mu tudd mu ne ko Muhammad Sam Sam mu ne ko fan la nekk mu ne ko mu ngi ci Bahrul Muhit mu ne ko woyam lii ma ko Assafa ah, mu Barqa nee nañ lu nit dox 70 ans mu ngi koy dox 70 minutes dama woo Mouhamed Samsam mu ne ko jiitu ma dinaa naafale junne ràkk dab la naafale junne ràkk dab ko ñu ñëw mun ne yonent Yàlla Suleymaan sa gan gi mu ngi si bunt bi waaye bala ngay wax ak moom nag dafa dañoo ànd mu ree ñetti ree te al jox ko bi laa sabab min xillatil adab toog rek toj xaqataay te amul lenn lu ko waral dalul ñàkkee teggin xadara yàlla ci di def loolu laaj ko lan moo war a ñetti ree Mouhamed Samson jënd bi ne ko premier ree bi damaa ree sama bopp mu ne ko waxuma la yow jënd bi nga yebal waaye melentaan yi dox ci baxrul muhiit melentaan bu yëkkati tànk bala nga tegaat tànk yàlla déggloo na ma tànk boobu nga yëkkati ak tànk ba ngay tegaat ku mun a dégg tànk melentaan jënd bi nga yebal nu mu kawre kàttan nu mu bëri doole départ ci kër gi ñëw ba dugg sama biir jàkk yéeguma ko ma yaakaaroon na ku rëy laa ci yàlla ne ko laa ko tuuti laa ci yàlla laa tax na ne saxiran fil maqaasamaati inal baawu dada tut mi muxata asadi kon premier ree bi damaa ree sama mu ne ko ñaaya yu ree bi dama romb benn seetkat benn petaakat mi petaawal ay nit lu mu leen di wax dara dañu ci juróom-ñaari at seen kanam kenn ku nekk la mu lay wax dëgg la waaye moom mii petaaw place bu petaaw bi tegee maam moom bu jur yaayam juróom-ñaari njaq yi mu defoon jamaa ak or place boobu la petaaw yi tegee te xamoon ko te bu ko xamoon moom ak ñu muy seeta seen coono jeex na ci kaw suuf waxtafaa minhu alal xubli mir aw min siddati zuhuri xafaaw përi bët li muy neex neex mënut a gis mbar mi ci kawam lu tax jege gum ko jege moo tax lu la jege mu ne ko bu ko xamoon moom ak ñu muy seeta seen jeex ci kaw suuf yow Souleymane dama laa ree nag nga xool sa doom ji lu na yàlla jox ci nguur nga nekk yéneen te xamoon na garab gee sax ci buntu kër gi moo koy faj ñi ne nañ benn tàgg la boo demee ci téere bi àndi na ko hmm. ne dafa jamb xob bi rek xalaxat bi moo xeeñ dox doom ji doom ji dog doxi soxlaam mun a jënd bi toogal ñu waxtaan mun a ko xajut fi xaaral ma dem ci ñoom dem googu mu dem desiwaatu ñu ne ci lañ taalifee barxut fa yaa yaaxin wa yaa yuuxin wa yaa xayra baari in wa yaa man la naa ardaaxu man juuduhu naamat kon shérif tabaarikàlla sa euh, waajur shérif bu naa ma xaydara nee na mu ngi lay yëgal gàmmu gi nee na le 21 la incha allah le 20 bi nee na danañ fa amal ay ay julli ci nafsu yooyu nafsul amaar ak ma bakkan bu ci nekk nee na am na turi yàlla boo xamante bi moo koy raxas ba mu set wecc mhm. nee diggante tàkkusaan gi timis gi danañ joxe dog yooyu mhm. buñ jullee timis dañ fa def salaatu tasbih mhm. bu ñu paree ñu mel ni yéen bu ngeen fa yeesee waxtaan ak njaboot gi nee na it bu ñu dem paree la nga xamante moo ci tegu muy samedi bu kenn tudd kenn ku du yeneen yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam Cheikh Sidi Mokhtar Kinde mi ngay àndal Chérif micro baa ngi nii wax leen kenn du yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyam def na benn téere wax naa ko ko Njaasaan mhm. na ko man eh, su may yére refatuñ mhm. aw ma alal waaye nag doomi soxna dàq may liir yombut mhm. waaw man bu ma toogee benn bés lekk ma amul problème waaye toog benn bés bu ma liirut problème la ci man wax naa ko Sidi Maxtaar ki ne na ko li nga bokkoon ñu nekk Njaasaan ku ma ëpp la téere yi sa maam taalif bëriwut fun dugg naa fa wër ko fa eh, toog na bés maamam yonent bi ne dàng sa kanamam na ko maalaka laa tusalli alayya lu tax doo julli ci man fa xaala loo kunte usalli alayka fi kitaabi kulli mu ne Cheikh Sidi Muxtaar kunte na ko pour Cheikh Sidi Muxtaar ànd rek a àndi mu ne ko fa xaala loo kunte usalli alayka fi kitaabi kulli mu ne ko def naa 300 téere mais bu nekk ci yonent bi lay commencé ci yow lay daane mu ne yonent bi ne ko maa daakal uridu bëgguma loolu fa qaala mawridu mu ne yeneen bi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko yeneen bi na ko uridu an ufarida laha taalifan ala xidda damaa bëgg nga defal ma téere boo xamante bi man dong maa ciy nekk kenn du ci nekk ku du man yeneen bi fa faalahu radiallahu mu taalif téere ba mu ko taalifa yeneen bi feeñuwaat ko na ko jàngal ma téere bi nee na mu jàkkaarloo yeneen bi di jàng téere bi yeneen bi yatamaa yolu mii jaayu nee na wa ana yatamaa yolu xalibatan ba may jàngal rasulillah yeneen maa ngi jaay ku ma woon moo ma jaayuloo yonent bi ne ko noo tuddee téere bi mu ne ko tuddee naa ko nafxu tiib fi salaat fi salaat ala nabil albaab mu ne Seydina Abubakar mu ne ca gannaaw yonent bi ne ko doo ko tuddee lubbul albaab buuri Maroc bi moo ko muur moo moo financé alal 2006 ñu muur ko Maroc la ma fekk kon kenn du sama am yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp ci lañ rawantee ci moom parce que lépp lépp xam wa qawlu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu l ilahu yajmau kulla xardin maani kaana li da alamatil iman Euh, Cheikh Hadj Malick Sy yal nañu ko yàlla fayal Chérif yaa ñuy ñaanal euh, Hadjal Abdoul Aziz mm-hmm. dafa ñëw Sokone di seet si góor gi Ousmane Jama Ba góor gi nee na ku ñëw nuyu ko rek du la sant bi mm-hmm. waaye sama papa ba mu ñëwee di nuyu Hadj Abdoul Aziz mu a mu ne ko sant bi mu ne ko ay dara mun ne ko du dëñ mm-hmm. xati yenent bi mu may xeeñ ci yow mu a sama papa ne ñu toog ñu dem ba war a ñaan mu a Hadj Abdoul Aziz na ko Chérif ne ñaanal nee na sax koroog wàcc ci kaw mu ne ko lu tax mu ne ko yéen sëti yonent bi ay biddiw ngeen ay weer ngeen sama papa ne ko bu fekkee ne bokk ca rasulillahi moo tax nekk kenn du fa moo tax ci wooy bi mu ne ko a ñaan xaaja abdul mu ne ko wallahi bokk ci rasulillahi nga toog yow abdu ñu ne ma tax ma ñaan bu ma ñaanee xadara yàlla bi moo koy njëkk rëddati man shérif may njëkk a tàllal loxo watul bu min ko madd na maliki bi shirk al azim laysa fii kasiru kon ñu ngi lay tàllal loxo nga ñaan nañu yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, mel ni yow yaa layta surafaa yëpp mel ni yow. yow wallaay wallaay wallaay wallaay yaakaar naa fii ku fi toog rek bég na ku ku nekk fii di dégg Chérif Ouye ku nekk ku nekk ci environnement bi di déglu it bëgg nga man de lenn rek laa lay ñaanal yal na la yàlla musal ci cat yal na la cat seexlu yal na la cet seexlu yal na la cet seexlu yal na nga yegg niw yoon yal na nga sut sa baay fan ak say maam te foo geesu gis ñu lii lañ soxla ci kuñ ne deretu yonent bi la te nii na koy defee njaasaan noonu la koy defee ay numaan jaxate ay numaan di fa la may fekk ay numaan di jaxate dëkku xaad yi ma jaxate kalam fa tabarakallahu yaakaar naa eh, dajale leen ko hàddiya maamoom déedéet déedéet yow yeeroo nga hàddiya ñaari yoon waaw waaw yeeyoo nga hàddiya ñaari yoon gis nga nit ñi bi ñuy génnee laajoo leen ko shérif laajoo leen ko ñoo yëg ne li nga doon wax rëy na ci ñoom fa tabarakallahu rëy na ci ñoom rëy boo xam ne rëy na ci ñun sax lay wax ñoom nag mu ne waaye man du tey laa la dégg nga wax moo tax jaaxalu ma ndax fi géew yi ñuy dajee bari na mag moom dama yegg si Njaasaan rek ñépp ne ma tardé nga ma ne leen lu xew si di Maxtaar ne ma yow foo nekkoon ma ne ko lu xew mu ne ma sa rakk Cheikh Tidiane Chérif Cheikh moo fi jaar wax na fi loo xam ne daal ma ne ko ah, yow doof nga rek kooku dafa wax dara rek kooku li bàyyam di wax dafa mën a wax sax ceenam <laughs> waaw wallaay yàlla xam na ko gis nga nii mu mel nii ba ngeen yëm ko bu moo waxoon yéen ñëpp ngeen fëgg seen dàll teg ci éloquence ci xam-xam fa tabaarakallaahu waaye li may wax toujours ku jur doom rek réeroo waaw ku ko dégg mu wax rek nga xam ne góor gi ay dara ko jur waaw fa tabaarakallaahu euh, sow bismillah bismillah may leen ko mu yegg si ku baax a ngi na leen Moussa soow mu nga dëkk ba ah li nga doon yëkkati dinañ la bàyyi nga yëkkati ko huwa alquranul karim te ci moom la daaneele alquran nit ñi bëgg guñ ko war a bëgg ak fonk guñ ko war a fonk moom la daaneele nga yegg si bëgg a yëkkati moo tax ma xaaral tuuti rek loolu nga doon wax la shérif daaneele ak ah, kay laa ko bëggee na déedéet laa ilaa nañ ko na duy rek yow da nga ko yelloo gis nga lim bi wax yëpp tabaarakallah am benn mbokk taalibe bu ma woo fan yële ay sax nañ ko bàyyi rek ndeysaan nit ñi da leen di yërëm ci tur yàlla yi comme ni mu doon wax rek tabarkàlla tabarkàlla yàlla daal moo yéeme Chérif jërëjëf waaw Chérif jërëjëf Chérif jërëjëf Chérif Ahmed Tijani jërëjëf kii toog Thierno Moussa Sow di dëkk ay la raaw yor daara di jàngale alxuraan daara ja nag moom mii seen dund ak yépp moo ko yor boo ko gisee doo ko xam moo yor seen dund moo yor léppi daara ja kenn fekk ko ci dinaa wax lu gàtt loo xam ne moom foog na ne xaw ma ko bi président Wade waree falu te faloogu avant 2000 98 moom nett mosoo ma ko nettali yow 90 98 99 wala 80 jëm côté yooyu la daal am ku ñëw seet si ko ne ko doon bëgg a ñaanal président Wade mu toog bu xool xool ne ko wartoon na falu waaye mën nañu jéem mu mos tuuti rek moom mi moo ko ko waxoon mën nañu jéem mu mos tuuti rek ku yàlla dimbale la ci duma ma àccu de maa bañ yàlla xam na waa ji te wax na dëgg ba ma fay dem une heure matin jot na te xam naa ne heure yooyu ah ndem am na ñu ngi ciy recevoir bariwul digganteem ak boromam rek El Hadj jama ba boobu ngay wax nag ak ma koo xam mook sama maam Cheikhou Diouf ay wëllëre lañ woon moo ma jàngal dalaa ilul xayraat secret yi ci nekk yépp moo ma ko jàngal moom El Hadj Ousmane jama ba maa ngi ciy mos a waxtaan ak sëñ Abdou Aziz Al Amin mu ne ma góor gu yéeme la woon mu ne sëñ Babacar si woo na ko bés pour mu dugal ko xaloo fii nee na bi mu defee xaloo bi ñetti fan bi génn dana sëñ Babacar si yonant bi ñëw na fa ñetti yoon seet ma mu ne ko benn bi daf ma ne fii may duggee xalwa bi lañ lay denc mu ne te boobu fa dara nekk gu fa boobu mu ne ko beneen bi ci des yonant bi nee na yaay tànn rek sa dund foo bëgg mu yem fa fa lay yem mu ne ko beneen bi ci nag seen yonent bi nee na ma koo bëgg mu nekk xalifa mooy nekk xalifa koo bëggul mu nekk xalifa du nekk xalifa moom Jama Ba surtout Maba Jaxu Bala jàkk ja muy jiite ca Sokone sama maam Biram Juuf moo ko tabax pour mu leer Biram Juuf ama yey sa Juuf ñoo bokk ndey ak baay ñoo meññ sama ndey Biram Diouf moo daan def ku julli booba tuubagut ci 1800 ku julli mu ne la buubal tuuri bu dee territoire këram bi mu tuubee nag la tabax jàkka jooju ne képp koo xam ne julli si nga fi fajar tisbaar tàkkusaan timis gee maa la yoral dépense journée bi jàkka ji da daan fees del bu ñu jullee ba noppi muy joxe dépense yi dépense yi suba yi waaye condition bi mooy dangay ngay julli si fajar mu di la gis tisbaar tàkkusaan timis gee bu ñu ma gee muy séddale dépense su ëllëg yi Biram juuf fañ ko denc ca garage sookoon bi sama maam Cheikhu ji génn àddina man la woo <laughs> te dem na 14 18 dem na 39 45 man ak doomam bi ñuy wax Tom Momadou ak Bas Basa nga Sokone sama nijaay Bas yéen ñi ñëpp xam ngeen leen. kër ci Moussa Daaf lañuy dal buñ ñëwee ci gàmmu gi sama maam Cheikh woo gannaaw benn une heure du matin laa ko fekk mu yor kaamil ci guddi gi ci lëndëm di jàng ma ne ko maam Cheikh kaamil gi guddi gi loo yore kaamil xanaa kay xaafis nga waaye ubbi bi faalewu ma sax mu woo ne ma dama bëgg ngeen dem raxasal ma moket yi jàkka ji man ak Tom ak Bas nijaay Tom nijaay Bas ñu dem di raxas jàkka ji fa la ñu wooye ne ma maam Cheikhu génn na àddina biñ koy jullee ci jàkka ji boobu mokket yi woowagut semaine boobu ci la ma jël benn mbubb jox ma ne ma demal joxal ma ko sa maam Ousmane Jama Ba ne ko mu ñaanal ma yàlla buñ dajee barzaq suñ kóllëre ñu mën ko fa mottali maa ngi moom duñ rawante ma ñëw bu jox ko mbubb mi góor gi Ousmane Jama mu ne ma demal ne ko des na grand mbubb bi na la ko jox nga indi ma dem indi grand mbubb bi jox ko moom it mu yëkkati grand mbubb jox ma ne ma dama jox sa maam te nga ñëwaat ma dem jox ko maam muy grand mbubb sëru rabal koy cawali yooyu ma jox ko maam Cheikhu ne ko ah nee naa ko fekk si mu ne ma demal ma dem maa ngi ko fekk ci kaw lal bi mu toog góor gu am daraja ma ñëw mu yëkkati li ma maam Cheikhu joxoon mu yëkkati turki bi ak caaye ji jox ma ne ma bii moom maa la ko jox sama wàll la waaye maa la ko jox mu ngi ci sama armoire ma denc Alaaji Usmaan jama ba sama bàyyi la woon waaye sama xarit la woon min kibaaril awliyaa ku sëñ Babacar si wóolu ba dina dugg loo doo como waaw mhm. Mhm. Abdelaziz Junior Amine toog. Mhm, Lamine. mu ne ko bi nga ñëwee ci góor gu Ousmane mhm. mu ne la ndax xam nga garab bu ñuy wax na mhm. ko garab googu tey laa ko soog a dégg. ne mu woo sama papa mu ñëw mu ne ko demal boo gasee ba tolloog sa loxo fii la xaw tooy nga àndil ma ko mu ñëw mu def ko ci saalam dagg mu sa su turaab yi jël baaraamam bi def ko ci béytal xaali bi ne Abdou Aziz Al Amin ci néeg bi na sama papa mu ne uhu uhu uh, rek woyal suñu Abdou. nee na ko ba mu ne oh, oh, mu woo sëñ Abdou sama papa ko wax fii sëñ Abdou mu ngi toog dëggal ko fii stade Amadou Barry mm-hmm. nee na ba mu ne uhu oh, uhu moom góor gu Ousmane Jama Baw ñu woo sëñ Abdoul Amin ba nee na garab gu moo sax ci digg saal bi garab ñuy wax antar mu dagg ci xob bi jëflanteeg moom la muy jëflanteeg moom góor gu Ousmane Jama Baw kooku ni mu meloon mu ah, nit mënu la ko ni meloon ci ci xamturu yàlla ak nasaraar góor gi Ousmane Jama Ba kenn mënu la ko waaw jóge nañ fii waaw man imam Moussa Gueye Kabir Kane ñoo bokk oto keroog Kabir Kane moto bi yëpp ganaar gu ñu eh, saaf ba wow la ci def léeg-léeg mu dompat jox ma jox imam Moussa ma ne ko Kabir lii nag mu ne nañ ci fobe yegg rek ku neex la nag nañ ci forbe ba ñuy yegg rek biñ demee alaaju aadama kan moo doon xalifa bi boobu bàyyi Adama Kane boobu sax mu ngi feebar ba paralysé daanaka toog rek la mën biñ ne asalaamaaleykum li may wax dem leen ngeen laaj imam Moussa Gueye biñ ne asalaamaaleykum mu ne koo kan la ma ne ko man la Chérif Ibrahima mu ne nañ ko wàccee lal bi ñu jël ko wàccee ko lal bi mu ne nañ ko teg ci fauteuil bi woon ci néeg bi ñu teg ko ci fauteuil bi mu ne man naa toog ci kaw lal bi lam wax keroog ñemewuma ko nettali fii ñu jógee fa continuer Sokone dem seeti sama maam Cheikh Ahmad Tidiane dem bu Alaaji Ahmad dem di rakku Mamadou Amadou dem toppoon ci moom ñu ngi ko fekk ci fauteuil roulant ci néegam maag imaam musa ak Kabir Kan ba tey dañ yegg si mu ne imaam musa démb la fi rasulullah jógee ne ma shérif dana fi ñëw ne nañ ko génnee ci saal bi ñu génnee ko ci saal bi mu ne naa dugg ci néeg bi toog fa cinq minutes door a ñëw fekk ko ci saal bi wàcc ci fauteuil bi ne nañ ko teg ci suuf ma ne ko loolu nag boo amee ma génn kër gi donc kay da ngay toog ci kaw ñuy waxtaan laaj leen imam Moussa Guèye yooyu nag waxuñ ko ngir dara <laughs> nit ñi ñooy caaxaan rek te caaxaan baaxul ma bëgg leen wax nag caaxaan baaxul caaxaan baaxul nañ bàyyi caaxaan caaxaan baaxul waaw yàlla lim def def na ko ba noppee xoolal shérif tey lim fi wax xol yëpp sedd nañ xol yëpp sedd nañ shérif waaye laa xarwa ñii ñoo xamul sa baay waaye man mii sa bàyyi jur ni mu la jure xam naa ne eh, yaa ngi ca yoon wa moo tax yi ngay jàng jàmbat yépp tawat yeeg yëpp yal na ko yàlla waaye dara nuur leer gu ëpp la rek nag sëriñ Cheikh nee na léegi maag ma male sama su ndoom sale ñoo ko doon seetaandandoor ak yaayam ndeysaan te yàlla daf ma xëy man ne xaaral naa seetaan yenn vidéo vidéo Serigne Cheikh yi muy wax ci benn xaleel bu baax ndaysaan bu nekkoon ak moom Maodo nu mu tuddoon kii Serigne Cheikh doon wax fàtte la ko turam moom duy fàtte lu bari maxtaar xaw ma maxtaar daal bëgguma wax lu ma xamul nee na xaleel la woon bu baax ci nitu yàlla yi la bokkoon génne nañ fotoom sax ndeysaan mu wax ci moom yu rëy mu ne waxoon naa ko ko nag noonu naa ko del fen tuuti <laughs> sëriñ xam nga lu ne moo koy am mu ne ko waxoon naa ko del fen tuuti waaye danga nga sell ba mu ëpp boo sellee ba mu ëpp dem rek dem rek dem rek hmm, waaye wax bu ci kenn jógee nag dem di toj dëkk bi <laughs> waxi Serigne Cheikh neexu la firi ah bu nag dem di toj dëkk bi naan Serigne Cheikh awa den fen tuuti ah ah, ah, ah fen baaxul waaye waxin la ah Serigne Cheikh nee na maa ko defaral sama bopp waaw nee bi ñu yegsee biñ ma woolee te ne ne ki ko woosi mooy waaje géey daaray kocc la nekkoon nee na ci moto la ko teg moto Serigne Cheikh ku ko gën a woyof gisuma ko nee na ci moto la ma teg ñu ànd dem këram kër ah mu ne biñ demee ma fekk ko mu ngi sonn mu ne te fan yooyu yëpp xale bi daf ko doon wax dama bëgg a dem Eh, bi ma yegsee ba tiim ko ma ne ah nañ ko dimbale mu dem jot na nag ndax mu sonn na te bëggatu fee toog nee ma ne am ngeen zam-zam Serigne Cheikh mooy wax mu ne nañ ko indi zam-zam indil ko zam-zam mu jàng ci suratu yaasin moom Serigne Cheikh eh, bi yaasin bi yeggee ma tafli ko ci kaas bi ne boobu mënta naan sax ak kaas bi ma jël benn kudd jox ko mu jàll ne jëlaat beneen kudd jox ko mu jàll mu ne ñetteeli kudd bi ma jox ko ko rek mu jàll mu dog ne na ma jël ko ndànk dugal ko ci wanag bi maa ko sang ba set sang ko ne na jël ko dugal ko ci oto ñu yóbbu ko Tiwaawan denc ko ñëw dëj ko mu ne soxna ummu ñëw ne ma mosuma gis dëj bu dalee nii géej naa gis dëj bu dalee nii ci dëju sëriñ Babacar Si mu ne ko kii dafa niroog sëñ Babacar Si ay mbir mu ne xoolal xale bu toll nii am cër boobu ci yàlla ndax lan barke sëriñam ndax barke sëriñam ci la ko amee nit sa barke sëriñ mën nga ci am lu ne waaw gis nga cofeel boo am ci sa kilifa mën na la yóbbu fu ne waaw nañ soxlawul sax ngay gis sëriñ bi na cofeel bi dëggu rek waaw Cerno Bachir Muntaga daa Cheikh Al Hadj Omar dafa am ko ma fa yóbbu woon kilifa la ñuy waxtaan maag moom fekk kilifa gi am lu mu soxla woon ci soxna pour par Cerno Bachir ñaanal ko ci moo tax kilifa yu bari sax sawaruma ci yóbbu leen fa da dañuy foog ne may may provoqué yàlla xam na ko li ñemee Cerno Bachir ne ko yow lee yaa ngi sonn di ñëw fii di ma ñaan loo sa cofeel bu dëggu woon ci Chérif Ibrahima rek sa soxla faju dëgg la ne ko duma la ñaanal demal nga defar sa cofeel ci moom rek wallaay defaral ñu reer ñu reer mu recevoir ñu waxtaan ne ko duma la ñaanal benn faatiha keroog wax na ci sëñ Abdou Alaaji Abdou Aziz loo xam ne Cerno Bachir ñemewu ko nettali fi ne ko duma la ñaanal dara yow la sëñ Abdou di sa maam nag duma la ñaanal waaye demal nga defar sa cofeel ak sa relation ak shérif ci sa xol rek ca nga yëkkati dara nga jox ko ñu génn waa ji jox ma benn enveloppe ma dàjj ko muy deux cent mille francs billet di cinq mille cinq mille yu bees tàq ndeysaan ma ne ko lii nag mu ne ah cam noo ko wax bi xelam doon jàmbat teguñ ci weer rek de yëpp baax de yëpp ah. baax yëpp yëpp waaye boobu laa ko gëj a gis nag ah, boobu laa ko gëj a gis yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaw yii dañ koy wax rek pour ñun ñëpp ñu dolli suñu cofeel ci suñuy kilifa waaw loolu rek lañ ci jublu ku am kilifa fonk ko Serigne Cheikh Tidiane si bu ngi koy wax léegi mu ne li ci des rek mooy ut kilifa ut kilifa mu ne ñàkk kilifa moo baaxut ay nañu ut kilifa te ci ko am ku ci am kilifa na nga ko fonk waaw mm-hmm. ah, na nga ko fonk ku ci am kilifa na nga ko fonk ku ci am kilifa na nga ko fonk